xamal tey le gouvernement de Macky Sall que tey jigéen ñii ma wër tey ñoo ma may doole ba ma egg fii tey élection yi nag metti woon na trop macha allah puisque comme ni ma ko waxee coalition bi à peine deux mois lay am walla trois mois te ku na xam ne ni Adja Yoni Thiam ba mu commencé def politique du tey xëy na nag tey la yàlla na mu wane ko ndaxte j'ai bu suma bëgg def politique pour pour être célèbre action sociale yi ma def yëpp dama ko doon def en cachette donc bi nu jógee ba taxawal politique dama si am njàngat bu bëri puisque nag bu ñuy wax coalition bi mën naa ni nag joué naa ci lu rëy rëy ndax man maa ubbil siège coalition bi sama témoin ya témo ñi ma témoin ñii ngi nii ma wër fii ñuy defee point de presse bi man maa ko fay ngir lan jigéen ñi lu ñuy jooy ma faj la leen ko ñu mën a bokk ndam li ndax nag coalition ak politique dafa laaj siège siège bi mooy lan fi ngeen di toog di waxtaane fi ngeen di toog di weccante ay xalaat mu metti lool lu ko mettil mooy fukki góor laa doon dajal te bu élection yi jaaroo yoon tey wala ndaxte je suis une femme ku ne xam ne des fois les femmes sont exploitées bu jaaroon ni mu waroon demee tey mairie bee ñun ñoo fay toog waaye nag waaye nag yàlla lu mu denc ëpp loolu kon tey lii du échec échec bi dañ koy dem dañ koy transformer def ko lu positif loo xam ni bànneex la ndaxte ku xam jigéen de xam xam ku am fit ak ku am courage ak ku mën a muñ moo wone lii tey ñu jàpp ni dañoo échec ñu toogaat fii janook presse bi pour nous ni ou nous mettre ce la nous gën ay dañuy takku lu Nous di def coalition bi animation campagne nous ñu def Nord amul candidat bu ko fi def ouverture campagne bi ñu def la campagne, nous Nous ñu fi di def ay caravane ku na nous ne nous très coûteux mais nous jëm ak sunu doole jigéen ñi takk seen digg xeebalun ma dara lu nu am indi ñi ngi ci ñi ngi ci mitin yi ñi ngi ci caravane yi ñi ngi ci porte porte yi góor ñu yóbbalun nu dara nu jóg fajar takk suñu ndigg toggal suñu bopp ay lekk ay naan jël ko jox ko nit ñi jox ko askan wi ñu dem voté ji yàlla la mu namm si ñun jox na ko nangu nan ko ak sunu fukki loxo mais nag ñuy xamal ni échéance yi li fi des bëri na langue gi ku ne xaj na fi te tey la Adja yónni ak jigéen ñu mu àndal tey la ñu gën a takku beneen bi ñaari défi yi may wax ni moom moo ma poussé ma dem ci campagne bi benn bi ci njëkk mooy defi participation ku na xam ne ni les femmes bi yoon participer nanu ala la à la à la campagne du ñi nekk si gannaaw Adja yónni Thiam defante ak góor ñi ba ñëpp teg seen bët beneen defi bi mooy lenn avant défi boobu lépp luñ fi def amul benn góor bu ko fi def beneen defi mooy defi représentativité la coalition booloo defar Tëngéej représenté nañ ko ca ca ville maam Góor Jasaaka moo ko jël te ku ne xam na ni nag lu yóbbu maam Góor Jasaaka ville ñun ñii dox nañ ci lu bëree bëree bëri beneen bi si des noor gi am nañ fi ñaari conseil yàlla loolu la nam ñu yem ci nag doyloo ko ndaxte coalition bu am ñaari weer am lii am na coalition yoo xam ni ban fi nekkee lanu fa am 5 am na ñoo xam ni 01 rek ngay dégg te ñun nag yàlla def na ñu am ay conseil tey conseil mën naa ni tey Adja yoonu coono boobu mu coono sonnoon ak jigéen ñi ko wër tey ñaari conseil yooyu ñoo ci bénéficié wu ñu leen ñu leen di félicité di leen ñaanal yan leen jig jigéen ñi danoo bëgg teg fii jigéen joo xam ni kuy xam jigéen ñi lañuy dund jigéen jooju faj ka jigéen ñi fi mu ne ñoo takkul seen bopp fii Tëngéej dootuñu fi décider ci département bi waxuma la sax localité Rufisque Nord lu Adja yónni ci am bokkul